rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati ancamta calaya wa ala walidaya wa an acmala saalixan tardaah wa adxilni bi raxmatika fi cibaadika alsaalixin rumna shukura allazi bilkaafi wannuuni maa shaa yafcalu min baadin wa maknuuni rumna shukura allazi bilkaafi wannuuni maa shaa yafcalu min baadin wa maknuuni billaahi jalla huwa arrahmaanu muqtadiran wa huwa arrahimu ictisaami wa huwa yugniini bihi ganiitu an il arbaabi fi abadin wa artaji minhu ajran gayra mamnuuni ilayhi qad tubtu za baycin wa saxsaxani an ilmanaahi wa an afcaali majnuuni wajjahtu wajhi lahu bizikri saa xidamin liman ataana bi mafruudin wa masnuuni zintu lqasaa'ida lilwahaabi ashkuruhu biha wali saaqa maa qad faaqa masnuuni an naafiin qaadirin barrin radiituhuna wa jaadali bi aziizin minhu madnuuni naajaytuhu mustaxiisan wa huwa zu karamin wa qablu an qaza zalwaadi wa sannuuni yallaahu yaa xayu yaa qayyuumu xus bi yadi wa asim janaabi bi sirrin minka maknuuni anta alxafiizu alladi abqi wiqaayatahu faltakfinii kulla maxluuqin yuqaasiini naajaytuka li yowma yaa man kunta lii karaman yaa muxniyan juuduhu balwaayi yunsiini anta alkarimu allazi tuuti bila sababin yaa xayra shaafin shafaa kulli bi taxsiini shafaytani alcaama faqbal maa shakartu bihi istaabat innuunu qabla alfaa'i wassiini kafaytani jumlata alacdaai yaa maliki yaa man can ilcaari taxmiini wa tunjiini raditu cankum ridaa an laa yufaariquni liirtumu ahla zaqumin wa sijjiini nafayta anni man xurru bi jiifatihim wa axrajuni kama suurin wa masjuuni anni furaade wa masnaya adbaru wa humu summun wa bukmun wa umyun kashayaatini manaatahum min janaabi baada satwatihim yaa maalika almulki yaa rabba salaatini tanfihim addahra an durri wa tansuruni bihim alayhim wa fawqa su'li tuutiini katabtu fi lbahri anni laa amuddu yadi ila nasaara abidi almaai waltiini inshaahu man bihi abqi sukuuna bihi dunya wa oxra bi tasxiihin wa tawtiini lillahi jalla yadi walqalbu maa badani <clears throat> wa saaqa lii fawqa maa inda sulaytiini li raada fi lbahri acdaai waliltasamu walkullu fi ma madaa qad kaana yuctiini tawajjuhi lillazi mahma shakaytu lahu ashka wali qaada ma ahwa bi takwiini yaquudu lii kulla ma ahwa bila sababin akrim bihi wa bi xayri shukri yuxyiini aasani wa hamaani min idaaya maan wa min maridi rajimin kaada yuxwiini nicma alxafiisu alladi mahma stajartu bihi ajaarani wa kafaa qidli bitaliini anni jalaadula man kaanat tuawiquni wa bilhuda jaada lii xaqan bitabiini maha uyubi allati kanat tuzalziluni wali yuayinu xayran kulla taayini tawajjaha alqalbu minni bilshukuri lahu بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمغصون لهب كونك وهابا مناي معا يا خير مغن بإعطاء المخاسين يا الله يا بر يا رحمن سق ردي maa asuli duuna kasbin xayra ma xayra mahzuuni yallaahu ya barru ya rahmaanu suqaradi maa asuli duuna kasbin xayra mahzuuni yaa xayra barri rahimin habli abdi kaza an laa yuxaasaba fi yowmi almawaasini wa jihli waalidati wa waalidi karaman wa an yajzihima xayran bi tamzini ala annabi salli bi taslimi bilxunafa yaa man kafaani aduwan kaada yuxzini laka sana warrida walshukru fi abadin yaa xayra rabbin murabbin qad yuraqiini ashku ilayka allazi fi lqalbi munkatimun kammil muraadi bi tamlikin wa talqiini wajji ilaya allazi arju bila kulafin wa kuffa anniya fujjaaran tulaaqiini anta alqadiru allazi laa shay'a yucjisuhu farud bi qaarika lii kulla dahaaqiini lii rud bi qaarika man qad sallasuu samadan summan wa bukman wa umyan kalmajanini daawtuka alyawma ya qahaaru ya maliki ya man shukuuri lahu walxubbu yudniini ya xayra muxnin ganiyin la sharika lahu fi lmulki walhamdi yunjiini wa yuxniini ya malika almulki ya man jalla an waladin rulli sawi lfisxi turan wassaaniini wajjih liya alyawma asraaran tulaazimuni wa takfini kulla shayin qad yuaaniini ajib du'aa'i bima faaqa zunuuna huna yaa muxniyan juuduhu yaati madnuuni najawtu min fitani l aadaa'i isqasadu nii bil madaafi'i turran wa sakaaki najawtu min fitani l aadaa'i isqasadu nii bil madaafi'i turran wa sakaaki adabtu iswaajahuni bil asa lakumu waruttumul kulla li misla almasakini ala nabi salli bi taslimi bil kurama wal tuxri day faka saaru jaam bi taskini muddal xayaata bima tardaahu min amalin wal tuxyi qalbi bi iqaanin wa tamkiini lakan siraafi bi qur'aanin urattiluhu wa bimtidaahi rasulin minka maamuuni salaatu barrin rahimin bisalaami maan ala alladi qad kafaana kulla taxmiini ala albariyati inda allahi manzilatan muhammadin man bi bisrin jaawa taamini lillahi aqbaltu walmuxtaaru waasitati wa artaji xawsa gassi gayra tasmini xaaji lada allahi bilmuxtaari qad qudiyat salla bi taslimihi alayhi aamini in kuntu za watarin aw kuntu za wajalin naajeytuhu wa huwa yugnini wa yaxmini tawajjuhi lillazi yuli lmaqaama bila ijalatin li jihaati lchaami walsiini rabbun yajuudu bi tayyin qad yaqii kula fan kama yunajji bila sayfin wa taxsiini diftu lkarima alladi yuqri bikun wa lahu hamdi wa shukri wa fi ddaarayni yucliini inni la dayfun li allaami lguyuubi huna waraada li kulla qitlin kaana yaqliini huwa alqadiru alladi tayyan yuwassiluni ila muraadi dawaaman kullama xiini wajjahtu bishukri wajhi lilkarimi wali yasuuqu marhamatan minhu min alxiini arju bi rahmatihi almuhtaadi sayidina zawri madinatahu daar alrayaxiini daaru mata maa yazurha zairun lihudan yasad hiya daaru daaru alxaqi waddiini qabatu kawniya abdallahi qaadimahu wa kawnahu liya yowma alxasri waddiini qabatu kawniya abdallahi qaadimahu wa kawnahu liya yowma alxasri waddiini lillahi aqbaltu bilmuxtaari zaaqidamin waxad kafaani bihi maa kaana yurdiini nawaytu shukraka fii zal yawmi yaa samadi yallaahu sal ayni qabla arraa'i washiini yaa man yukawinu maa qad saa bila sababin kawin muraadi wari walirut maa yuqashiini yaa man yukawinu maa qad saa bila sababin kawin muraadi walirut maa yuqashiini bittayi waljasbi habli su'la duuna anan yaa xayra muxnin murabbin qad yuqalliini rabbaytani faltuwassi li huna wa gadan bila xisaabin wa kun li istuxalliini habawtani billazi qad faaqa matlabati faltakfini kulla xiinin kulla malcuuni minni taqabbal wa zid shukri wa zid madadi wajcal shukuriya busra xuurika alcayni tawajjuhi lillazi tardaahu min camalin wa min maqaalin wa kulla suui takfiini kafaytani zamaan walcurya maca sagabin wa bilkitaabi allazi anzalta tashfiini fajjir yanaa bi amaa ilxaybi fi xaladi waasim lisaaniya min laxni aladanini yaa rabbi salli bi taslimin ala sanadi wal aali ma sahbihi shummi laraanini alayhi salli wa sallim biljamici wa qud nii lilbaqici allazi btadabnu madcuuni bi tay julli warulli kulla zi xasadin munaasicin bi sinaani shirki matcuuni anta almujibu allazi najjayta min garaqin nuuhan bi fulkin azimin minka mashhuuni anta almujibu allazi najjayta min garaqin nuuhan bi fulkin azimin minka mashhuuni dacaaka min qablu saadaati fa kunta lahum فليستجب يا مجيبا كل ممحون كون جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي أعدائي بتمرين إني لعبد قديم صرت ضيفك يا rabbi wa bil itqi wal itlaaqi tuqrini lii kun bi kun sarmadan wajal masiri yaza jawfal fara lil wara misla al maharini saraftu xaaji liman yaqdi al jamia bi kun wa tawassalu bil mamduhi fi nnuuni ala al baraya wa axshaha wa akramiha inda allazi jaada li bil mimi wan nuuni liman kasaani wa rawaani wa ataamani yaraati shakiran kal lawxi wan nuuni hubbi wa wuddi wa ridwaani wa mahmadati li man xabaanii bi maa qad faaqa masnuuni yaa rabbi salli bi taslimin bila adadin ala bashirin nadirin minka mamnuuni nabiyika almustafa bisaalihiina maan wa kun bikun liya fii baadin wa maknuuni wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi shahri mawlidi man fi lbahri rabbaana lillahi shukriya fi shahri rabici huna ala ibtidaai alladi lixtaara qurbaana qad aqbala alxayru mimman laa sharika lahu fi lmulki walhamdi israaran wa iclaana dacawtu barran raximan nicma karramana fi lbarri walbahri nicma allahu mawlaana kawin bikunliya fi zal yawmi tawsiatan xata uqiima li diinillahi arkaana rabbaytani faltahab lilaama ya samadi idmaana xayrin wa isaadan wa iskaana rabbaytani baada itaamin wa tarwiyatin an yowmi tarwiyatin is jutu sadyaana makkantani baada dayqin suqta li xulalan muwassiyan baada ma qad yaqtu riyaana naajaytuka alyowma yaa man amsika ramani wa suqta lilyowma iqaanan wa burhaana isrif xuluba nasara ya qadiru ila nasiwaru liya man qad assawhana bi kawnika alwahida alqahara munfaridan liqahidana ala busraya idmana nabahtani amsi tanbihan ara ajaban anta albadiu alladi ma zala rahmana yasarta li amsi habli lyawma tawsiatan bihaula simu ma tardaahu ihsana awaytani bada ma daqa alfuaadu hasan fa sarmadan li yarut jinnan wa insaana aslamtu wajhi ilayka alyawma saaqida min liman xadawtu lahu kaaban wa hassaana daa midaadi qadaa xaaji li xidmati man tafsiruhu darar al aadaai ansaana muhammadin xayri xalqillaahi sayidina salla alayhi alladi adcuhu tibyaana wajih salaatan bi taslimin lahu abadan wa li bayaanan wa anni kufa isyaana xamaltani rabbi bi takrimi duuna anan fi lbarri walbahri zid risqan wa tukulaana malik niya alaama ya wahaabu fawqa raja i waltarul liya aadaai wa muslaana li jud bi risqin xalaalin tayibin waqini maa lasa tardaahu israaran wa ilaana naajeytu barran rahiman mugniyan wa lahu amri ufawwidu arju nasrahu laana ushkur shukuriya wassili huna waqadan yaa waasi'an mughniyan maa zaala dayyaana habli bi kawnika wahaaban munaaya ma'an hattaa akuuna bimaa'il qaybi rayyaana makkin wa wassi wa muksij'al bi tawsi'atin ka laylatil qadri ahyaanan fa ahyaana fiika ij'alil muktazaa fanin bilaa zalalin wa kammilan biya ahyaanan fa ahyaana yassir liya al khayra wa'simnii wa sidra sadii yaa naafi'an lam yas'al barran wa mannaana ilayka qalbi wa jusmaani kadaka yadi ya haadiyan lam yasal rabban wa xannaana lii jud bi luqyaa sawi limaani fi ajalin xata tubassira man qad kaana xasnaana bi kawnika alqaahira aljabbaar rumtu huna an laa unaasica jabbaaran wa sultaana rulli salaatina yaa qahaaru fi abadin waltaxminii wakfinii makran wa shaytaana rajawtu annaka taxmiinii wa tansurunii نسنا سيسا بنيلي منك رضوانا وخيتني مكر أعدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا لهب فراقي الذي لم ترده قلقا والتمه عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنس سجعا ثم ميزانا haji bi qalbi taqabbal wakfini xataan waltamushayni wa kammilni bima zaana rabbi stajib wal tukammil ma nawaytu ladaa tuuba allati bika tubna fiika bunyaana wajjahtu wajhiya yawma sabti murtadiyan ila allati sarmadan in qaala kun kaana rabbun karimun hafisun waasiun samadun wa abtaqi minhu taysiran wa iskaana zid ilmi zid ilmi al yawma zaydan qad yubassiruni fatan wa faydan warul li dahra sajjaana zid ilmi alyawma saydan qad yubashiruni fatan wa faydan warul li dahra sajjaana qadiru qahaaru yaa jabbaaru yaa garadi rud lillati yaaxusu lamwaala majjaana naajaytuka alyawma yaa barran alaya lahu shukrun yuxajjilu yaaquutan wa marjaana anta alcaliyu alcazimu alcadlu yaa amali anta alcalimu alcalimu albarrahmaana habli bi haqqitihi l asmaai xaariya man amsa yukaabidu ahla alxaqi azmaana minka ltamastu allazi aatayta wassulaha xatta bihi qaharu l aadaa idmaana mallikniya l yowma yaa wahaabu matlabati waltakfini kayda man lilxisi qadmaana naajaytuka l yowma saa faqrin ilayka fakun li muxniyan waftaxan lil yowma biibaana iftax liya l yowma bilmuxtaari sayidina awaaba xayrin tajuru risqa ibbaana iftax liya alyawma bilmuxtaari sayidina abwaaba xayrin tajuru risqa ibbaana likun bi juudin wa iscaadin wa marxamatin wa bilbusaaraati yaa man fadluhu baana tayib xayaati bila mawtin wala dararin wajal bi fadlika muksi rabbi qurbaana yassir jamii allasi arju wa atlubuhu xata akuuna qariir al ayni jaslaana yaa rabbi qud liya fi ddaarayni kulla munan wal takfini abadan makran wa xislaana bayin li alxaqa kasfan laa yufaariquni kama kasafta li ahlillahi tibyaana isib xuluub al aadi an azaya maan li nusrati wahdi bi shiiban wa fityaana taraktu amsi allazi qad bictuhu wa mada fa dahra baddil wa anni kufa xisyaana wajih li alkasa wa tasxiira duuna anan wal takfini sarmadan jahlan wa xusraana fataaw habliya fatan qad yuri ajaban yaa xayra haadin hadaa xumran wa xayraana diftul karima allati yuxri bikun abadan wa an uaawana fi tuubaaya qad aana diftul karima allati fi lbarri karramani walbahri issaaqa li bilfaydi qur'aana lahu xitaabiya yowma sabti fi watani wa baana li amsi maa qad saara burhaana nabbahtani amsi zid faydan wa maarifatan wa sarmadan biya nawwi rabbi azhaana ijcal rujuuci ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana habli bi fadlika kawni sarmadan farahan lil muslimina wa xallid fiika busraana malikni al yawma shay'an laa yufaariquni min al busaarati fi daarayni jiiraana alayka usni bi abkaarin aji'u biha min al fuyuudi allati tansabu widaana lii suq dawaaman futuhaatin akunu biha بسالما بهدى الإسلام قد دانا أنت العليم الذي علمت حسبك ما فاخو بتيك ميدانا فميدانا كون لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد ف... قد كان فقدانا كون لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا ثبت جناني وسدد منطقي وقني لحنا بإعدام ما قد كان وجدانا yassir liya alyawma ya wahaabu jumlatama arju wahab liya taqdiman wa rujuhaana rabbaytani rabbi fi laadaai muqtariban xata rujuuya lil awtaani qad xaana malik ubaydaka maa yaxtaaru minka bila makrin wala salabin wajcalhu misaana malikhu ya rabbi maa faaqa almuna karaman yaa man yusayiru man qad jaa shabaana naajaaka murtajiyan an laa tuxayibahu ولتكفي يوم باعث الخلق ميزانا خيب رجاء الذي يقلي في أبد من عميق وكان الحج ميزانا لو اكتب العام أجرا لانقطاع له في كل ما فيك ينوي منه دنزانا قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في عجل يا خير من أمه من كان عجلانا أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا أخرى فهب لي العود مولانا تركت ما كان لي بالبيع مبتقيا ما عند من لي يقضي حاجتي لانا تركت ما كان لي بالبيع مبتقيا ما عند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني بكن لانا ديقي أسل عاجلا بالبث مع مدد حتى أقيم لدين الله أركانا yassir rujuu'i li tuuba wax mi nii waqi nii asal wara waltu tim li sama iskaana yassir rujuu'i li tuuba wax mi nii waqi nii asal wara waltu tim li sama iskaana laka sama wal araadi wal hawaa bila musaarikin li yarut man shirkuhu baana ajib wa salli bi taslimin ala sanadi muhammadin waltahab li faayiqan baana ajib wa salli bi taslimin ala sanadi muhammadin waltahab li faayiqan baana usni ala man bi fathil xaybi yuftiini wa artaji minhu busra suurati tiini lahu kalaami wa sumti wa huwa yulhimuni wa bilbusaaraati duuna alkaddi yaatiini lahu xitaabi wa axnaani wa akramani wa kawnuhu liya ansaani basaatiini habli bi hurmati lafzillahi kun abadan yaa xayra muftin bi kasfin minka tuftiini kafafta xablul asaa anni bi kawnika lii وسغ مرادي لي بالكاف والنون نجيتني اليوم من عودي إلى سلع قد بعتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيع ماء الخيب يا سمدي في القلب مني وزدني فوق مسنوني يا أكرما لم يسل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتغنيني wa jihliya alyawma kasfan laa yufaariquni wa tuhni muksi bi mafrudin wa masnuni nabatani faltasid ilman wa maarifatan wajal xayaatiya ajran gayra mamnuni nabatani faltasid ilman wa maarifatan wajal xayaatiya ajran gayra mamnuni maraamiya inda allahi ahwi sarmadan bijaahi alladi alaa ani muhammadan xusuuni an al a'daai wannaari walbalaa ثنائي على من سعسع الدير أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أخلص السعي حمدا متى ما أهد للمت والشكر خادما يجد بالمنى والعود ما زال أحمدا دعاء استجب بالمصطفى رب سرمدا ومني تقبل رب مسعاي وأحمدا دعاء استجب بالمصطفى رب سرمدا ومني تقبل رب مسعاي وأحمدا yaa jumlatan qad sallasuu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu axrajtumuuni naatiqiina bi annani abdul ilaahi wa annani la mujaahidu wa sanantumu anna almadaafica indana walkullu minkum zuuqilan wa yuxaasidu wa maqaalukum xaqun wa maqaalukum xaqun fa inni abduhu wa xadiimu abdillahi wa huwa alxaamidu wa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhi llahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bilculuumi wa bittuqaa habdan qadiiman walmuhayminu shaahidu inni lahu abdun qadiimun linnabi wa huwa almuqaddamu walshafiicu shaahidu salla alayhi bi aalihi wa sixaabihi bisalaamihi rabbun ilaahun waahidu salla alayhi musalliman wa acaazanii min xitlinaa iblisa wa huwa almaaridu wa aqaamanii subhaanahu bilmustafa fi ma bihi taati lmuna wa ushaayidu wa bihi kafaani ahla kutbin qad taxaw walkullu minhum bittanaasuci xaasidu sayfi allati yafri tulaa man sallasu tawxiiduhu fa huwa alilahu alwaahidu tabban li qawmin sallasuu bidalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu uffin li qawmin asraku wa zukuruhum xulfun wakkul uffin li qawmin asraku wa zukuruhum xulfun wa kullun jubba'un wa mukaabidu akrim bi rabbin lam yuwaaqishum bima kasabu huna wa huwa sabuuru lmaajidu nima alladi yaxsha alilaha muwaxidan wa yarumu maa yardaa wa biisa aljaahidu wa madaafici allaati biha anfi lcida wa biha yufaariquni canidun qaasidu zikrun xakimun uxkimat aayaatuhu mimman yusaxsihu maa yuridu almaaridu wa biha yudamdimu lii cala man axraju duniya uxra fa huwa rabbun maajidu wa biha yudamdimu lii cala man axraju duniya uxra fa huwa rabbun maajidu wa biha najaati min makaa'idihim macan wa biha allayaaliya fi salami akrim bihi zikran hakiman jaadali rabbi bihi wa huwa alkarimu alwaajidu amma rimaahi fal ahadisu allati waradat an ilmaahi wa nicma alwaaridu wa biha uzaxsihu bidcatan qad axdasu wa biha yulaasimuni sacidun caabidu wa biha yufaariquni garuurun yaxtafi wa biha yulaasimuni irtiqaaun qaalidu akrim bi man qad jaa'anaa bi nusuusiha nicma almujaahidu fi lilahi alcaabidu nicma almusafaau fi lxalaayiqi kullihim yowma aljawaa nicma alshafiicu alqaayidu nicma almuqaddamu fi lkiraami jamiicihim wa bihi yufaariquni caduwu raasidu salla alayhi bi aalihi wa sihaabihi man laysa yucjisuhu kanuudun shaaridu salla alayhi bi aalihi wa sihaabihi man laysa yucjisuhu kanuudun shaaridu bisalaamihi wa bihi hadaani bilculaa xatta actalat bi ummuna walwaalidu amma alfuruu fa ashumun qad xuddidat li xadiisi inna alfuruuca zawaayidu wa biha usacsiu saailan min shubhatin an jaanibi inna assihaama tawaaridu amma allati yatajassasu alasraara lii fa tasawufun saafin jalaahu amaajidu annaa jasa alaslaafa xayra rabbuna yowma jasa fa huwa alshakuru almaajidu annaa jasa man bayyanuu bi nasihatin maa fihima wa badat bitaaka fawaayidu anna jasa man bayyanu bi nasihatin maa fihima wa badat bisaaka fawaayidu yanfi lida an alladi la abtagi badalan bihi fa huwa alxafiidu altaaridu wa huwa alladi qad kaana lii wa aazani abadan bihi mimman qala wa yuaaqidu qad saananii dunya wa oxra aaminan wa yaquudu li maa qablu minhu uraawidu in kaana lil acdaai aslixatun biha xiifu fa aslixatiitihi wa ujaayidu wa biha yufaariquni siraarun sallasu wa tanaasacu walkullu minhum xaasidu wa bi kawni rabbi li akunu muwaxidan man lam yakun waladun lahu aw waalidu yallaahu ya raxmaanu ya rabbal wara ya man lahu kulli wa fiika ucaayidu kun lii bima faaqa zunuuna takarruman wa qini allati fihi albalaa wa shadaayidu wa tuxnini dunya uxra ya ali ya man lahu minni tajiu qasaayidu yaa xayra muxnin bilkitaabi hadaytani wa bi sunnati almaahi allati huwa xaamidu li sa bisuki sarmadan laka maaridan wa ilaya wa ilaya minka taraifun wa faraidu li sa bisuki sarmadan laka maaridan wa ilaya minka taraifun wa faraidu yaa rabbi suxli sarmadan fawqa allati arju wa inni fi mahalli qaaidu yaa yaa xayra muxnin astagiisu bi fadlihi yaa man lahu minni hunaaka masaajidu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 laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim limaahin basirin saana kulli maa rayi madiihi maa al aadaabi wal ilmi wassaayi qidaami alayha daynu matxin li sayidin ataana bi qur'aanin xakimin min alwaxyi daani ila mathi nabi zaydu bisrihi wa fi akbari ridwani maa bisrihi waxyi jara lillati farra albaraya lahu bihi min alxayri maxbuutan lada al axsi waljari ataani amaanu min bala'in wa fitnatin kufiitu shaqaa kaljuuci walfaqri walcuri isa ma madaxtu lmuntaqan qaada lii bihi widaadun wasafun raafaqa anfaca dari karimu matee tamdaxu yamdaxka rabbuhu wa fi madhi faaraxtu shakkan ma algayhi muhammadun ilmuxtaaru saadi li maliki alayhi salaatun ma salaamin min alxayi rasulun karimun min karimin mukarrimin alayhi salaama muzhibi dulmi walgayyi salimtu min alaadaai walmakri walaza bijaahi alladi yuxni bihi llahu an mashi widaadi li mawlaana wa lilmustafa annabi wa lil aali maa man faaraqu lgisha bilxasi laqad jaakum asna ala xayri mursalin xamaana bihi albaaqi an alsatwi walwasi maa almustafa qasda alaadi li janibi wa inni ala xayrin kathirin maa alwaqi nabi nabiyun jammala allahu zaatahu kama axsana alaxlaaqa bittuhri walruqi alaana liya alqahaaru bilmustafa nabi قلوب الورى حمدي له ما لأنه نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والرأي سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا عود له الذنب كالسعي كفى الله كلي كل ما لم يحب لي براق على كل الورى أفضل العلي muhammadun il muxtaaru baabiyal wara alayhi salaama xayri man jaada bil ali alallahi usni saa salaatin musalliman ala man bihi durri la dallaayi zuufani zimaamu wara asri la dallaayi fi yadi wa maa rumtuhu min malikin qaada bil ani yamiini ala al aadaai sayfun muhannadun fa man lam yusalimni yamut wa huwa suuqisi zimaamu sawi l islaami fiiha fa man abaa mukuusiya fi dunya uzilla maa aljisi alayya li wajhi llahi daynu sana liman hamaanii bihi lbaaqi an ilmakri walbaqi li rabbi shukuuri baada amdi ala annabi wala tantahi nahwi zawsati bittugi yusafi liya alxayraati rabbi bijaayi man kafaanii bihi alaadaa turan bila layi hadiyaatu rabbi qad hadanii wa suffiyat waqati yuri lgarraa salqassi wanna'i midaadi wa aqlaami li rabbi wa linnabi alayhi salaam xaafidin jalla an nasi ila basti xayri lilmi fi sadri muhtadin hadallaahu kulli walmabiatu kannisi alayya tawaalifu allati yahtadi biha ida shaa rabbi xayru man faasa bilwaxyi nawa alqalbu minni basta ilmin yaquudu sat taallumi waltaalimi lillahi ziddaxi tahiyaatu baaqin qad hawa alkawna mulkuhu ala ahmad almuxtaari man mathuuziyi توجهت بالمختار والساب مدة لمغن به لي جاد بالذكر والطي محلاه بالماهي حسابي مصححا وإني بماء الغيب ستور والري حصوني عن الأعداء والداء والأذى شفيع الذي كليتي سان بالحي رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لست زاهسي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في العين والعسي yaquudu li albaaqi bi qur'aanihi almuna wa bi wa li baaraka alwahaabu fi alayni walasi siraati siraatu almustaqimu allati bihi husimna min alakdaari kalmaydi walxasi alayya li wajhi llahi tartilu zikrihi qadiman liman axnaa bihi an asal mashi liman qaada li abkaara ilmin wa xayrahu sukuri qadiman lillazi naaju suuqi bi yadi musqadamtu almustafa saatu ribatin xusimtu min al aadaai warraadi wasafi kafaani ilahi binnabi lmakra walshaqa wasaafi fayuudi llahi fi lqalbi suuqiri maa laaw qasda durri nahwi bijaahi man xadat fa anaaran qad naat qablu bilwari bijaahi man xaada zaydan baada husnaahu nilnaa falaaxan wa gayra ddiini husnaahu bijaahi man xaada zaydan baada husnaahu nilnaa falaaxan wa xayra ddiini husnaahu ufdi shukuuri li rabbi baada mahmadati على الذي قد هوى في السؤل أسناو لقاد رب الذي قد جاد الكرماء به به وادا كلي وأنماو محمد قد جرت نهوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماو وجهت أبكار مدحي للذي أبدا يقود لي كل ما أردى وأشهاه محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوي أبهاو نبينا لم يكن سرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في القلق سرواه يسني مدادي كأقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مأواه نبينا قاد لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مزاياه رسولنا أحمد المختار قدمه باق قديم هدت عمري هداياه آيات أحمد لي قادت مواهبه ولي تقلد ما أردى وأهواه واجهت ربي بمته المستوى زمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر اللعين لغيري سرمدا وجلا وليس ينهو جناب الدهر مسعاه رمى الإله الذي لا شيء يعجزه سعي ومن أما الريحان منعاه هما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنى به كلي وأعلاه يهمي جنابي للجنات رافعه بالمصطفى خير من أبداه مولاه محمد قاد لي ما لا يفوس به xayri min allahi man abdaa wa axfaahu farahtu xayra alwara fi xidmati wa lahu xati bi tamliki baaxin fii safaawu aqsamtu billahi inni linnabi abadan xillun wa hibbun wa ma abaahu yaa baawu nabiyuna almustafa xayru lwara qaradi fi kulli cheyin wa ma yaa baawu abaawu tara qasaida tawxidi li malikina shawahida alxaqi manaatan liman baahu wallahi inni yaqillun lil ilahi bihi xijbun lahu duna kasbin fii ujusaaw li gayri durri jara iblisu muqtayban muayasan min jihati llahu axsaaw laqad tabayana lil aadaayi muzamanin anni habibun liman nad'u biya llaahu wallaw furaada wa masna mudbirina maan li gayri durriya nimal waahidu llaahu aska salaamay karimin laa yuxayibu man bila sarumtu li mun jin jaabi tikraawu fawsi bi sikrin hakimin laa yufaariquni maha bihi lmuntaqa husni bi busraawu qiraaya aayu kitaabin laysa yaqrubuhu iblisu qatan bi man qad taaba masraawu lillahi shukri ala xayri alwara wa ala ala kitaabin bi waxyi llahi majraawu haaji qada allahu bilmuxtaari duuna firan yanqaadu li kullu ma lillahu yardaawu sa askuru llaha liljannati murtadiyan anu wali qaada ibqaan wa amdaahu banaa liya llahu xisnan maanian wa lahu hamdi wa shukri ala man minhu abdaawu yardaa li allahu kawni daara shaakirahu wa qaada li xayra maktubin wa ajdaahu urdi ilahi wa urdi almustara bitila wa til kitaab allazi qad jalla maanaahu lakum xitaabi ya ahla alasri jumlatakum bi fadli man su'lanaa aataa wa nilnaahu li yashadu dahra anni muminun abadan wa muslimun muxsinun ma asbiya allahu huwa alilahu huwa arrahmanu xaaliquna huwa arrahimu allazi man saa alaahu lahu alwujudu allazi qad saanahu qidamun maa albaqaa allazi abqaa man abqaawu allaahu arsala xayra alxalqi ahmadana lam yaqli xayru man mawlaahu asqaawu isaalu ahmada laa yaxfa ala ahadin illa ala ahadin yuxsiihi mawlaahu li ahmada almuntaqa maa laa yuraa abadan li xayrihi faaza man lillahi waalaahu allaahu faddalahu xidman wa qaddamahu wa man abaa nahjahu bilasli qallaahu huwa nabiyu rasulu lmuctama wa lahu taawi l akaabiru man walaahu xallaahu inna arrasula la nuurun yustanaaru bihi duniyaa wa uxraa fa man aadaahu ardaahu lahu xitaabiya fi shahri rabii wala yanuu jihaati allasi biddurri aadaahu laka alwasilatu yowma alxasri min malikin ixtaara kawnaka za sabqin wa ajraahu ilayka tanqaadu yowman yufhimu shufaa jamiyahum yaa basiran niltu busraahu hadiyati ya rasulallaahi haaka bila raddin wa kun liya yaa man jaahuwul jaaw waliyi allaahu anta dahra wasitati yaa man bika allaahu ma lixtaara an jaaw awsi bi rabbiya wa huwa alwaxidu alahadu min allaini kafaani charra man jaadu lillahi qad tubtu min sanbi wa min iwaji wa huwa almukarrimu nima alfardu wassamadu yasuuqu rabbiya ma lam yarda li abadan li xayri nahwiya laa yanxuuniya alkamadu hadiyati min ilahi daara saafiyatun wala asaalu alayhi daara actamidu taslimu muxnin karimin naafiin samadin ala nabiyin bihi lillahi altaidu wajjahtu kulliyati lillahi daa xidamin للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة qabla tawajjuhi li fanqaada li sadadu lil akrami lwaahidi imtaddat yadi wa lahu hamdi ala xayri man yutaa bihi lmadadu tawbi ila algaafiri alxafaari taharani kulliyati binnabiyi almuntaqa rasadu wa alaaniya allahu walmuxtaaru fi abadin fadlan wa fustu bima qad waddahu alxasadu hibaatu rabbi kafanni kulla mahlukatin yasuu janaabi biha walqalbu waljasadu wa sixtu bil akrami almuuti bila iwadin wa saaqa fadlan li xayri dahra man xasadu rabbi ilahu wa xayru lxalqi wasitati wanqaada lii xayru man qaada lahu lubudu bilmuntaqa xata rabbi ma alaya maan wanqaada lii ajru man bilxaqi qad abadu bilmustafa lii bana alqudusu madrasatan biha yasuulu alasa waljahlu walkabadu aska salaatin bitaslimin ala sanadi muhammadin nuuri man bil xayri qad saayidu lil mustapha fi jamii l aali quttu sala tan bi salaami min albaaqi bi man waadu anni ilahiya bilmaahi luquqa maa min aqi man qarubu minni wa man baadu raditu an malikin muxnin yubassiruni ila aljinaani bi xayrin laa tanaalu yadu shakartu barra rahiman laa yuwajjihu li illa busaaraati xusna laazamat zayadu axnaani allahu an makrin wa an xasadin xata maat niqamaatu nafsi walqawadu linqaadati nafsu tawan walxayaatu ridan xata ma an jana billahu wal awadu anni afa llahu bilmuxtaari sayidina afan bihi laysa yanhu nahwiya safadu zulmi maha bi rasulin qad mahaazani bi bisri man laysa yaaru mulkahu nafadu yanu li xayriya zulmun ka zalaami maan bi mahwi man huwa rabbul arsi wassamadu malaktu xayra salaatin bisalaami liman huwa alwasilatu min baaqin huwa al ahadu mallaktu xayra salaatin bisalaami liman huwa alwasilatu min baaqin huwa al ahadu allahuma bi aqwatillahi taala alkarim salli wa sallim wa baari ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa bassirhu salla allahu taala alayhi wa sallam bi hati alqasida wa abli fiha ma lam yakun qattu li gayri wala yakunu abadan li gayri min alxawaariqi wal ajaa'ibi wal karaamaat waj'alha li amaanan min makaari dunya wal aaxira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 wa saxbihi wa sallama tasliima wa innaka la ala xuluqin aziim wafiqtu billahi alali maa alkitaab wa kaana lii bila adan wala itaab wafiqtu billahi alali maa alkitaab wa kaana lii bila adan wala itaab askuruhu ala mihaa'i durri wa taabi wa jaadali bi sirri nawaytu shukrahu bima lixtaara wa bimtidaahi bashara almuxtaara nafa li gayri jihati alaxzaana wa bishukuri rafaca almiizaana nafa li gayri jihati alaxzaana wa bishukuri rafaca almiizaana كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له صواب لا يريم كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له صواب لا يريم كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له صواب لا يريم كتابتي أحب لله الكريم من جل ما لو ثواب لا يريم لله قد أوزلت توحيدا يدور بين خياري الشموس والبدور علي من بثبوت الغدم بلا اضطرار ذو البقاء والغدم علي من بثبوت الغدم بلا اضطرار ذو البقاء والغدم لله أوصلت وللرسول ما جادني منه بغير سول الله النعم أحد والله الصمد الذي بدد علاه لله أوصلت وللرسول ما جاد لي به بغير سول الله النعم أحد والله الصمد الذي بدد علاه خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد لم يخف كون الله رب العالمين وأنه خدم أحمد الأمين خدم أحمد على رقاب من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن عبدت ربي بخدمة الشفيع وانقاد لي منه به صيط الرفيع ظللني ظل رسول الله عزمت من حر وضر الله ينقاد للجزاء والوجور وليس ينهوني الذي يجور ملكني من صانني عن العتاب ما اختار لي بلا عساب الكتاب ملكني من صانني عن العتاب ما اختار لي بلا عساب الكتاب وإنك لعلى خلق عظيم ولا اللعين والأذى لغيري في أبد بجاه أذن خيري ولا اللعين والأذى لغيري في أبد بجاه أذن خيري أزكى صلاة من نفى الشيطان إلى سواي وهدى الأوطان نرومها للمصطفى في الآل والصحب في الحال وفي المال نروم أفضل صلاة وسلام لمن به قاد لنا الله الكلام كبت ربنا العدو فانكبت بالمصطفى الذي تقدم الثبت للمنتقى وجهت ما أعلاني في أبد وكب من قلاني عن ثنى قبل ذو الحميم بخدمة المشفع الحميم لانا لي القلوب والأبدان تحبني البيضان والسودان إلي قاد الله سرا دمرا من جيل حالي وخاب الأمرا خذ الثناء يا خير من أعلاه باق هداه والمنى أولاه لك شكوري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راغ قدمك القديم يا مقدم يا من نحت مني إليه الخدم لك سكوري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلمراق لك سكوري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلمراق قدمك القديم يا مقدم يا من نحت مني إليه الخدم عليك صلى بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كون خير ظهر لي كونك غير العالمين أنت النبي والرسول والأمين ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يرضي العدا بك العليم من قبل أن أراهم الدار وكل باوأ يرضي العدا بك العليم من قبل أن أراهم الدار وكل باوأ وإنك لعلى خلق عظيم ود النبي والرسول أحمدا دب لغيري كل من لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبدي خالق الزمن نبينا أحمد لا يبارى فمن خلاه لازم التبارى نبينا أحمد لا يجارى عند الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر اللعين الغاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أسد كل مشرك مغزي العدا مغيب لم يدرك للمنتقى أسد كل مشرك مغزي العدا مغيب لم يدرك أبى أبو جهل تقدم الرسول عليه تسليمات معطي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب بالذق مرارة بها تنزل حليب lam yaflaxi lkadaabu ay muzaylima udxukatan li muslimin wa muslima qaada huda llahi aba bakrin ila xidmati diini llahi abdan daila umaruhum izzatuhu wa nawwara xusmaanuhum summa caliyun sawwara umaruhum izzatuhu wa nawwara usmaanuhum summa caliyun sawwara zahara xaqu llahi amma albaatilu فجيده بيوم بدر عاطل يمضي الذي أراده الله بلا منازع ومن أباك بلا يمضي الذي أراده الله بلا منازع ومن أباك بلا مدو النبي والرسول أحمدا ذب لغيري كل ما لم يحمدا مدو النبي والرسول أحمدا ذب لغيري كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير وجه النبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي به البرايا باهى نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا كتاب أحمد زواه نسخا وإنه بخيره لينسخا للمنتخى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم منه إبليس أبق عليه صلى بسلام سرمدا في الآل والصعب وكل حمدا للمنتقى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاهد أنا يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة غير العالمين فهمت صدري علوما نافعات أفهمت لم ينوني شك ولا توهم ولسوى قلبي ينول وهم قلبي صانه الجميل عن خبيه وليقود النور فيما ليبيه علمني من لوي والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارس من عداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار محى النبي المنتخى المنير ظلام قلبي وحظى بنوري محى النبي المنتخى المنير ظلام قلبي وحظى بنوري وإنك لعلى خلق عظيم wallahi inna almujtaba qad fataha ma kaana qablu muxlaqan fan fataha wallahi inna almujtaba qad fataha ma kaana qablu muxlaqan fan fataha alsabqu waltaqdimu lilmuxtaari وآله وصحبه الأستار نفعني خير الورى بلا ضرر وقادني من البحور والغرر نفعني امتداه خير مرسل صلى عليه مذيب لكسلي كرمني مدعو النبي في العدا به كفاني الله كل من عدا لي بان أن المنتخى باب الهدى به عدا الهادي الكريم من عدا على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرام شكر على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مور العور خطي رضوان الإله والسرور للمنتخى الذي كفاني الغرور لي بان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجمال الثانية من المحرم امتداء غانية علي للمختار خير صلوات من رجب للختم دون عفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري بفضل الأنفع ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري بفضل الأنفع يقودني كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمدا محمد لي باب خير فتحا صلى عليه من عدا فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجهت مدحي للذي مع الحمام وكفوا إلى العدا نعم الإمام وجهت مدحي للذي محى الحمام وكفه إلى العدا نعم الإمام أكرمني الباخي الذي ليس يموت وكل من قصد ذري يميل نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المغفي كالمألوف نويت إعياء العلوم الدين لوجه هاد بالنبي يهديني nawaytu ixyaa alulumi ddiini liwajaadin binnabi yahdiini karramani alalimu walxabiru wa kaana lilwaasiu walkabiru layyana lilqahaaru qalba kulli man xala walam yatu waraada lizzaman ala annabi xayri lbaraya usni bima bi alayhi rabbi musni law iltazamtu durara alamdaahi وبالمنى رضا ملا أقداه له التزمت درر الأمداه وبالمنى رضا ملا أقداه امتلأ الحوض وقال قطني مألا رويدا قد ملمت بطني امتلأ الحوض وقال قطني مألا رويدا قد ملأت بطني خذ خدمتي يا أفضل البرايا يا من يسوق لي ردا قرايا لك امتداهي لجمال الثانية من المحرم امتداه غانية غد التزمت صلوات من رجب لخدم ذي الحجة سعيا ينتجب غد التزمت صلوات من رجب لخدم ذي الحجة سعيا ينتجب عظمك العظيم يا من عظما يا من كفاني كل من تعظما zuhuru sabxika ilayya qaada jamiica maa rajawtuhu fanqaada zuhuru sabxika ilayya qaada jamiica maa rajawtuhu fanqaada yaquuduni kun fayakuunu sarmada jazaa rabbi wa jazaa ahmada محمد محا إلى العدا الحمام عليه تسليم الذي يبغي الإمام محمد محا إلى العدا الحمام عليه تسليم الذي يبغي الإمام وإنك لعلى خلق عظيم ود النبي المصطفى أفضل زاد فمن أحب المجتبى أعلى وزاد ود النبي المصطفى أفضل زاد فمن أحب المتبع أعلى وزاد أمداه خير العالمين قد نفت كدا وضرا وشقاء فانتفت نبينا أحمد فاخ الأنبياء عليه خير صلوات ربي نبينا أحمد فاخ المرسلين عليه سلم حبيب الأكملين كون رسول الله فخر الشرفاء خير الورى سرا وجهرا عرفا للمنتخى ما لا يرى لأحد من الورى من الكريم العادي علم رسول الله دونه علوم كل الورى قاد له علم العليم للمتبى ما لم يكن لبشر من المنى فمن يطع يبشر إن ابن عبد الله فاق ملكا وفاق جنا عند باخ ملكا غض امتداحه الذي قد نظما من مدح ربه الذي قد عظما للمصطفى المشفع المكرم مني امتداح جاد لي بكرم للمصطفى المشفع المكرم مني امتداح جاد لي بكرم قد بان أن المتبى قد فاق من أبضاه أو يبديه مالك الزمن علم كل من له معقول تقديمه فسبقه معقول ظلم نفسه الذي مال إلى غير رسول الله منبع الإله ينقاد أفضل صلاة وسلام من مالكي بي للذي محى الملام محمد قدمه خير الورى باخ كريم ليقال الصورى محمد قدمه خير الورى باخ كريم ليقاد سورا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم محمد قدمه خير الورى باخ كريم ليقاد السورى محمد قدمه خير الورى باخ كريم ليقاد السورى محمد قدمه خير الورى الذباح الكريم اللي قاد سورا وإنك لعلى خلق عظيم وجاني منن تديم بيجا بكتاب بي أكون ليجا وجاني منن تديم بيجا بكتاب بي أكون ليجا أكرمني آي كتابك ريما هندمن لي يخوض فضلا سروجا أكرمني آي الكتاب كريما عندمن لي يخوض فضلا سروجا نبو ذكري من الكريم أتاني ذا مكوس ولا أروم خروجا نبو ذكر الإله حاط جنابي ذا مكوس وخا حويت بروجا كرمني على خليل عبيب وكفني الذي يلاخي اللجيجا كرمني ولا خليل حبيب وكفني الذي لا خل جاء لي غاد الكتاب فضلا عظيما من عفيظ كفى الأذى والثجيجا علي الخط بالسنة ذا صلاة وحوى النفس المنى والسلوجا لإمام الولاة درا مديه مع صلاتي ولن يزال بليجا لإمام الولاة درا مديه مع صلاتي ولن يزال بليجا inna man laada bil ali damtidaahin raafaqa alxurrumal xasaw wal xajiija xidmatul muntaxa kaban niyaaran wa sayalqaa hudal ilaahi alxujuuja li yaxuudul munaamadi shafiin وسيلقى العداوة والدروج ليقود المنى مديح شفيع وسيلقى الحدال ذا والدروج قاد لي مدهوم سايا كرام وبي قاد لي إله الهروج غست بالله من معاد عنيد وكفاني بمصطفاه العلوجا ظهرا للمنى كما لي ميلاد ساخ للسبق الذير والولوجا يا رسولا له أديم صلاة مع سلام ولن تسال بهيجا مد لي مطلبي ومهجل سؤلي بالذي بالسنا أكون ليجا مد لي مطلبي ومهجل سؤلي بالذي بالسنا أكون ليجا إن علينا جمع وقرآن اقرأ وربك الأكرم الله نور كفاني ظلم ولا يوجه لنحوي من ظلم الله نور كفاني الظلم ولا يوجه لنحوي من ظلم نحوي مع العروض والبيان والأدبياء لخير العشان نحوي ينو للكتاب والحديث وزين عمري عن أذى ذوي الحدوث عروبي أنت وينو منطقي إلى رضا الله وهو منطقي لساني يحتمى عن الفضول يرغى إلى الأفضل عن مفضول يخوض للتوحيد والفقه مع خير التصوف الذي لي جمع نفى بياني وبدي كل من بارسني وليطيب الزمن innal maaniya nafan muaniya wa man na durriya saara aaniya jazaau rabbi wa jazaau lmuntaxa lii wasala wa niya jaada birtixa ma tawaju ala dalillahu xatan wala ilaha illa allahu habatu rabbiya bi xidmati shafi wa xaadani bi loo nicma rafi hadaani yallaahu bi xidmati rasul alayhi taslimahu baada xayri zul walladi daal islaami binsiraafi li xayri durriya maatiraafi qultu muhaddisan bi xayri niami lii wasalat min xayri muxnim munami raafaxani xablul kiraam warrijaal fi xurbati waliya tayyabul majaal آيات ربي سلسا ما ساء لغير نحوي ومن أساء أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سوء وغير مكر ناديت ربي بي أواما وإنني أهدي به الأقوام هداني الله بي وهدي بي يالي وأنار مهدي أقرأ في الليل وفي النهار بلا غواية ولا انتهار قراءة القرآن سارت جنة عن الأنا وجنة للجنة رفعني الله بي وقبلا عمري بي كشف لي ما استقبلا إذا قرأت وصلت لي بشر تنفي لغير جهتي من أشر واجهت ربي بي وأشكر وبلساني وفؤادي أذكر rabbaani ya rabb wa ni'ma rabbi bi dikri wa xidmati almurabbi bayyana lillaahu alladi laa yaxfa alayhi shay'un sirrahu wa axfa baaraka linnaafi'u fi axraadi bilaa ifaasin wahda araadi kawwana lii man jalla an misaali maa gaaba fi daarayni an amsaali akramani al akramu bilkitaabi bila takallufin wala itaabi lii talabal qur'aana wal lisaana man gaada fi daarayni lii xisaana allahu lii salaba waqta xurbatii maa lii yaduumu ajaban fi turbatii kitaabatii qablu ladaa man kafaru nafanii daa man jaadoo wa nafaru raddat biizni maaliki axlaami li xayri durri yawida islami raddat bi isni maliki axlami li xayri durri yawida islami mana nuuru man kafani azulam ay yatawajja li nahwi man zalam mana nuuru man kafani azulam ay yatawajja li nahwi man zalam inna kadalika najzi almusinin ila aljinani wajjaha allahu alkarim كليتي خيرا كثيرا لا يريم إلى الجنان وجه الله الكريم كليتي خيرا كثيرا لا يريم ناجاني الباخي بلا تكلف وانخاد للوعد بلا تكلف ناجاني الحي الذي ليس يموت وجاد لي بنور نطخ وسمود ألان لي خلب الذي خلنا durriya muxnin li yudimu lminaha kitaabati raddan li gayri kulla man raama adaya wa ataban lizaman dabat kitaabati ya iblis allain ila siwaya wa xamaniya almuin ida katabtu tasa xarsu di ljamal wanxaada li ilmun wa saayun wa jamal lam yanu xatiya fudulun aw kadib ولكتابة الرضا ينجذب كبة ذو الجلال والإكرام بخطي العدا مع انشرام نفع هدايا خطي المخبون وانخاد للكتاب والسبيل جذب للخط مقامات الرجال ولي سير الرجال والمجال جذب للخط مقامات الرجال ولي تواسير الرجال والمجال زنت مكاتيب تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا يخيني الخط ضلالا كغضب وكل من كابل خطيا غضب يخيني الخط دلالا كغضب وكل من كابد خطيا غضب أكرمني الله بكون خطي إلى الجنان خابلا ذا متي laa yantaxi li xatiya alxisaanu wa yanjali fi lana albayaanu laa yantaxi li xatiya alxisaanu wa yanjali fi lana albayaanu madda liya alazama fi xati wa fi nudxi musaasiun bi muxawifi xattat kitaabatiya anniya allaxa wa xayarat inda annabi albulaxa سالمني الأعداء ترا بغروب يدي وخطي يجود بظروف سالمني الأعداء ترا بغروب يدي وخطي يجود بظروف سالمني الأعداء ترا بغروب يدي وخطي يجود بظروف نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن خسوات ذي المزايا لا عباد ناب الكتابة لدى أهل الكتاب عن غزوات ذي المزايا لا عتاب يقود لي منافع البلدان خدي بلا أذى من الأبدان نفى اللعين الله نفعا لا يريم لغير ذاتي وأجوري لا تريم نفى اللعين الله نفيا لا يريم لغير ذاتي وأجوري لا تريم سنقرئك فلا تنسى سعادتي بخير ما وإن كتبت في لوح من من مضر يكبت سعادتي بخير ما وإن كتبت في لوح من من مضر يكبت نفعني من لا يزال نافعا وللجنان خاد للمنافع قراءة القرآن صارت جنة وجنة عن الأذى للجنة رافقني القرآن في الدارين ولهداية وجه العارين آيات ربي قد لذاتي وليس ينو كدر لذاتي كرامتي قد يدي بلا غرور والخط لي يخوض أفضل برور فازت آياتي بحياة الله عبدا خليلا لله الله لم يخف كوني خديم المنتخى والخل والحب له مع التقى أذهب عنك الكلي الخفولا باخنا ما عن بدري الأفولا ترسي عن الآفات والعناء كوني بذي البخاء ذا استغناي نفي نف دائم لا ينتهي وبحياتي أحتوي ما أشتهي سقاني الباخي إلى الجنان ماء محم ماء ممهرا بجناني سقاني الباخي إلى الجنان ماء ممهرا بجناني إلى فؤادي وجه الكتاب موصلا موطنا مثابا تب لغيرك الكل العوائقا وخاد لي ما لا يزال لائقا كفلا ياتي الهدى والظلما وما يودي غفلة أو ألما رد الذي كاد يودي للكدر لغير ذاتي ذو الخطاء والغدر مد لي الصحة والحلاوة باغ حما عمري عن شقاوة نفعني القرآن نفعا فاخا وغاد لي من يقبل الوفاقا مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة عبدت ربي بجميع الحركات والسكنات وحياتي بركات يقود لي من عنده قد كتبت سادتي ومن دري كبت يقول لي من عنده قد كتبت سعادتي ومن دري كبت سنقرئك فلا تنسى سقط المامد إليك يا جليل مصليا على حبيبك الرسول نبيك المعلم العليم محمد مفتاحنا الحكيم قلب قلوبنا إلى الصواب وهب لنا بجاهه حفظ الكتاب رقب به قلوبنا للحكم وهب لنا بارتفاع همم أخرج قلوبنا من الغيوب حتى نرى الأسرار في الخيوب كن جاذبا إلى دقائق الكتاب فومنا وأعطنا خير الثواب فقري إليك دائم كما يدوم غناك عني كسواي يا كريم لك إلهي الملك مثل الملكوت كما لك العزة مثل الجبروت أجب دعائي ولا تحرمني ما أرتجي منك لخبه شأني تفضلا علي بالقبول وبالرضا بالمصطفى المقبول نبيك الفاتح ما قد أغلق المتبى الماهش فيه المنتقى سيدنا خير الورى محمد عليه منك رب طول الأبد أزكى صلاة وسلام بما نهوينا وفي الخيام النعما أزكى صلاة وسلام بما نهوينا وفي الخيام النعما iqra wa rabbuka al akram udi bihamdi liman li sabbata alxadama نعم السكور الذي ليسكر الخدماء أودي بحمدي لمن لي ثبت الخدماء نعم السكور الذي ليسكر الخدماء قد بان لي أن رب العرش مالكنا له الوجود الذي قد لازم الخدماء ربي غني وباخ لا شريك له باخ خديم عدا الأتباع والخدماء إن سألوا قاد لي من قادت الفضلاء إليه بالكد يسرا فالعنا خرما وجهت كل له والله أكرم منه أن لا يخلد لي دون الأذى كرما رجوت وهدى كلي وأكرمني فضلا وسرت لدي الدار محترما بكونه لي زرت الدار ذا أمن وحل لي عقد در كان منبرما بكوني لي أحوي الدار جملة ما خدرمت ما مزيد منه لمرما لي لي لو الدار قد أسلمت ذا يخنر بأن ربي اشترى ما بعت كرما إليه بالمصطفى سيري وأوصلني بي إليه وما بي إليه وفي ما اختار لنا رما إليه بالمصطفى سيري وأوصلني بي إليه وفي ما اختار لنا رما للمنتخى المصطفى وجهت قبل سنان ولا داود عظيم عقده برما أغرت ربي كوني قبل عابده bi xidmatin li raisil as bi xidmatin li raisil asfiya alkurama katabtu dalika aadan bilwafai mada wala yakunu bi idnillahi munsarima rabatu fi xidmati almuxtaari ma daridal riban aziman hawa muxadiban harama rabitu fi xidmati almuxtaari bada ridan ربا عظيما حوى مخجلا هرما مني صلاة بتسليم له أبدا من الشكور الذي ليذكر الخدما مني صلاة بتسليم له أبدا من الشكور الذي ليذكر الخدما اقرأ وربك الأكرم أوزل ربي يوم عاشوراء لي ثمني والسنة الخراء أوصل ربي يوم عاشوراء لي ثمني وسنة الغراء قراءتي نابت عن النوافل ولم أكن عن الرضا بغافل رافق قلبي ولساني أبدا توفيق من بأموري قد عبدا رافق قلبي ولساني أبدا توفيق من بأموري قد عبدا ida xaratu farra iblisu ila xayri jaati wa ataani al ila waxaani al baaqi wa daaw ajmain wa xultu maadian lo nicma almuin radiya anni llahu fi kulli layaad wa liyasuuqu minhu afdala ayaad baa alladi amma ataaya qaaiba ولا يزال شاكيا وخائبا كرم ربي إن قاد لي بلا انتهاء وسفري إليه قطعا ذو انتهاء إليه قد فر الكتاب والحلال بلا يتاب أو يساب أو ضلال لم ينوني ذو كفر أو فسوق وليقود الله نفع سوخي لم ينوني ذو كفر أو فسوقي ولي يقود الله نفع سوقي أزمان ما عني بيع وصلت إلي والإداء لخيري أقبلت كتاب ربي أخذت تاليا لوجهي وقد نفى الأقتاليا كتاب ربي أخذت تاليا لوجهي وقد نفى أقتاليا رافقني الرجال والكرام وانخاد لي بلا انتهى المرام ملكني الكتاب ربي المنزل وانخاد للخراب والنزل نسى للكتاب نسى قد ظهر لي الذي فوق عبادي غر علمني أسراره تعليما من خاد للأنوار والعلوما ملكني سنته غراء من لي خاد يوم عاشوراء ملكني سنة الغراء من لي خاد يوم عاشوراء اقرأ وربك الأكرم أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان قراءة القرآن أمن من لعين ومن سخاوة ومن مكر المعين ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى ضمانا إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبغي النجاة فلك وجوه خاري الكتاب ناظرة يوم الجزاء للجميع ناظرة وجوه غاري الكتاب ناظرة يوم الجزاء للجميع ناظرة ربح الذي يلو الكتاب ربح من يدوم ذا سعادة معلما بركة المختار بركة القرآن فاخذ ظنا قارئ يفوز حيث عنا barakatul quraani faaxat wannaa qaari'u yafuuqu xaydu annaa barakatul kitaabi taxmil qaari'a mimmaa minal balaa'i yakuunu taari'a kanzul kitaabi laysa yafnaa abadaa qaari'u laysa yulaaqiika abadaa kanzul kitaabi laysa yafnaa abadaa qaari'u laysa yulaaqiika abadaa ilaa siwal qaari'u yaqsidu lla'iin yasuuqu li xayri tardu lmu'iin li qaari'i lkitaabi inda almunzili fi sirri wal alani xayru nuzuli ilal jinaani duuna raybin ilkitaab yaquudu man laazamahu bilaa itaab kitaaba rabbi innaka alkitaabu wa fiika qaala daalika alkitaabu رب الذي يلوك يا قرآن رب حفة يخبط الأقران من بك لا تخافه الشيطان وسره الموضع والأوطان اقرأ باسم ربك اقرأ أقبل اقرأ باسم ربك لا إله إلا هو زير أنت اقرأ باسم ربك اقرأ خبيرت ilaa ilaa ilaa sayri anta waxaadali bilanti an maa yusta loo xitaabi wa nafa hidaaya li xayri naawi fa nama hadaaya raditu anka wa radita anni wa kunta lii bi karamin wa manni aataytani dikra alxakima taaliya wa suntani وزنتني كما أنا أخطى ليا أعطيتني الذكر لكني متاليا وزنتني كما أنا أخطى ليا أعطيتني الذكر لكني متاليا وصنتني عما نحى أقطاليا باركتني في الختم والتلاوة وللجنان قدت للحلاوة أوزلتني إلى الجنان الأعظم خوفت مني كل من تعظما سقيتني ما بي تمهرا قلبي وكلي بي تطهرا ملكتني كليتي تمليكا قد أخجل الملوك والسلوكا ربيتني تربية لم تغفري ببال زغد زنتني عن خطري باركت لي في الحركات والسكون وللجنان قادني كن فيكون بعت سوى الإسلام بالإسلام وانقاد للخرق بلا ملام كتابتي فاخ شيوخ التربية وإنها فاخ شيوخ الترغية كتابتي فاخ شيوخ التربية وإنها فاخ شيوخ الترغية أنقل من لو إلهي والقلم خطي بلا وسوسة ولا ظلم أنقل من لو إلهي والقلم خطي بلا وسوسة ولا ظلم قبل رب العالمين كلمي وسر خير العالمين خلمي رد الكتابة إلى رب الورى وبالنبي لي قال رب السورى أكرمني الملك والسلام أذكر بالقرآن لا ألام خبلت ما أهدى به الكريم وفي دوام الشكر لا أريم بركة الإسلام نحوي أقبلت ومن خلوني في البرايا خجلت لم ينوني كافر أو صنديق وانخاد للمؤمن والصديق نويت سكرة البرايا وانتهى سيري له بمن سرى للمنتهى نويت سكرة البرايا وانتهى سيري له بمن سيري له بمن سرى للمنتهى نويت سكرة البرايا وانتهى سيري له بمن سرى للمنتهى وربك الأكرم وجهت لله الوجه wajjahtu lillahi wajhi wa huwa akramu min kullin karimin wa arjul juuda wal karama wajjahtu lillahi wajhi wa huwa akramu min kulli karimin wa arjul juuda wal karama rajawtu minhu taala ma afuusu bi hatta akuna ladal akwaani muhtarima bi kawni liya arjul yawma kawniya daa فوز بحل الذي قد كان منبرما بكوني لي أرجو اليوم كوني ذا فوز بحل الذي قد كان منبرما بالمصطفى رمت من مولاي حوزي ما قد رمته وعطاء منه لم أرما كل له اليوم قد أسلمت منسلخا من زلاتي واشترى ما بعت كرما كلي له اليوم قد أسلمت منسلخا من زلاتي واشترى ما بعت كرما إلي بالمصطفى أقبلت ذا خدم وفي تحر الذي يرضاه لن أرما للمصطفى المتبى الهادي علي بي علي بلا شك ديون امتداء عقده برما للمصطفى المتبى الهادي علي بلا شك ديون امتداء عقده برما أقرأت ربي كوني عبده أبدا وخادما لرئيس الأسوية الكرماء كتبت ذلك أعدا حبله ثقة ولا يكون بإذن الله منصرما rajawtu fi xidmatil maayuna waxdan min almukarrimi juudan yasdari harima rajawtu fi xidmatil maayuna waxdan min almukarrimi juudan yasdari harima minu salaata bi taslimin lo abadan abgi wa atluba minu aljuuda walkarama minu salaata bi taslimin lo abadan أبغي وأطلب منه الجود والكرم منه صلاة بتسليم له أبدا أبغي وأطلب منه الجود والكرم أبغي وأطلب منه الجود والكرم منه صلاة بتسليم له أبدا أبغي وأطلب منه الجود والكرم رضي الله عنه ورضوا عنه radiya anillahu fi kulli layaat wasuulu minhu li yakunu dhal qiyaad radiya anillahu fi kulli layaat wasuulu minhu li yakunu dhal qiyaad damma ibaadaati ilaa sayin ibaad azaliina wa muaadiya abaan damma ibaadaati ilaa sayin ibaad السالين ومعادي أباد يقود لي في كل ما قلبي أراد إبات باغ خير مالك يراد إلي خاد برضائه المراد وبي يري من بتعلق المراد لو توسلي بمن في الخلق زاد وليس ينمو لجنابي فزاد له سؤالي وقضى حاجي وزاد فوق المنى ولي قاد غير زاد الله خير من نهاه وجاد وقاد لي مخدل سلك وجاد الله خير من نهاه واجتاد وقاد لي مخدل سلك وجاد هدي يدي منك فني العناد كما ترم من إلي تستناد عنه رضيت والورى بي أفاد وقاد لي ما لا يكون ذا نفاد ناجد ولي ما لم يبقى وقاد لي ما لا يكون ذا نفاد ناجد ولي ما لم يبقى ورم لي كل فعال واعتقاد ناديت ولي ما لم يبد قاد ورم لي كل فعال واعتقاد هدية الذي العباد والبلاد لو لينقاد بها أعلى اعتلاد مد إلي من له كل ليات ما زلت منه ذا صفاء وأياد وجهت كلي إلى رب البلاد مرتديا عنه وخاد الاتلال رديت عن ربي وغي وعن غير العباد صلى علي رضيت من ربي وعن غير العباد صلى علي من بي ضر أباد رضيت من ربي ومن غير العباد صلى علي عن صلى علي من به ضر أباد رديت عن ربي وعن خير العباد صلى علي من به ضر أباد ضيافة الباخي تخوض للمراد بغير جول فاجتماع وانفراد وجعل الزمن مغن عن كساد وعن إقالة ومكر وفساد أذكر بزمني مع استناد كل يدي إلي من غير عناد عبدت مع من على الخلق وزاد وليقود كل خير بالوزاد نومي وأكلي وشرابي رشاد وغيرها أجور مغن عن نشاد نومي وأكلي وشرابي رشاد وغيرها أجور مخن عن نشاط هذا الذي له العباد والبلاد كليتي وقاد لي خير تلاد هذا الذي له العباد والبلاد كليتي وقاد لي خير تلاد رضي الله عنه ورضوا عنه ربي كريم واسع ويفضل wa wasilati abdun ladayhi mufaddalu rabbi karimun waasiun wa yufaddalu wa wasilati abdun ladayhi mufaddalu dayxi wa faxri qad azalahuma maan بالمصطفى من سبقه لا يجهل ديخي وفخري قد أزالهما من بالمصطفى من سبقه لا يجهل يا رب سل على النبي محمد والآل والأصحاب من قد فضلوا أزكى صلاة ما سلام والجد رضوانهم يا من لوجهك أعمل لك كالكلي لك جسدي لك نيتي لك غربتي ومواتني والمنزل لك ملبسي ويراتي معلويا ولك المداد ومثربي والمكل هب لي إذا متى ما تحب وترتدي في مسكني توبى التي لك تنزل عنك ارتحالي وانتقالي راضيا وإليك قصدي راجيا لك ران ناجيت ربا واسعا قد خادني بالجود والإكرام نعم المجسن هو مالك هو نافع هو رافع هو واسع وهو الجميل المجمل ملك له شرخ وغرب وله وكذا له بر وبار يكمل وجيلو متوجه بالمصطفى وبآل بدر رفقته من كملوا رضوان من دوخوا هداه عليهم وعلى رفيقهم الذي يتطفل ضيف ضعيف يرتجي بهم القراء ممن يكرم من يشاء ويبجل وليت عن لهو ولخو مدبرا لله بالقرآن اليوم المنزل أبخي به وبخدمة الماء النبي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 سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di siyaare bu baax ci jataay bi ak ci bis bi ak ci weer wi di sant suñu borom bu baax ci xéewal gu màgg gim nu xéewale ci lislaam ci gannaaw sëriñ bi ak ci weeru màgg wi ñu ne ak lii ñu fi doon diglu muy xasaayiti sëriñ bi muy lu màgg a màgg dimbalul suñu boroom ak taw fii xam mooy tax ab jaam mën a moom kon ñu ngi sant sunu borom bu baax ci loolu bi ñu defalee ndimbal ci loolu ak tawfiq ba mu daje ci noonu ci jataay bi di leen gërëm yéen itam ci coono yi ngeen toggoo ak pasteef bi ngeen am ci diglu gi ak yar bi ak dal gi waaye loolu rekk la laaj xasaayiti sëriñ bi fu ñu ko yëkkati malaayiku rahmaan dañ fay teew doonte nag mën naa am xijaab ba duñ ko gis loola tax ku koy diglu ci njàngeen wu sell wu teewu dallu yi war ngaa ànd ak yar ak teggin ak dal ñu ngi leen sant ci loolu bu baax am na ci bu baax a baax kon delloo sant bokk yi nga xam ne ñoo ko doon taxawee rek eh, lii ñu def wax dëgg yàlla positif rekk la ak jom waaye sax seen yitte ak seenu jot mayu leen ko waaye nag lépp seen njariñ rekk la liggéeyal sëriñ bi ku la ci woo ci sa njariñ képp la la woo ci lu lay dimbali tey ak ëllëg képp la la woo kon nag loolu seen njariñ yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon taxawee waaye tawfeex suñ borom moo tax ngeen man ko itam kon na sant yàlla bu baax ci loolu ñu koy ñaan ci daraje xasaay di ngeen gën koo man bu baax Eh, defal leen wér ak man eh, defal leen tawfiix ci ndimbali ba mu gën a yokk waxtu wu ne ngeen gën cee soññ bu baax rek xam ne liggéeyal sëriñ bi rawatina liggéeyal ko ci xasaayid yi amul lu ko féete kaw ci ab taalibe kon na ngeen sax ci gën a fonk xasaayid yi te itam lu ngeen dem dem bu leen ci yëg seen bopp ngeen benn benn benn yoon senn saa bu leen ci yëg seen bopp dee leen yëg sëriñ bi rek saa bu ngeen saxee ci di yëg sëriñ bi ci li ngeen koy liggéeyal ci xasaayit yi waxtu wu ne yéen a ngi dolliku yéen a ngi yëkkatiku seeni may di dolliku waaye saa bu ngeen ci yëgee seen bopp rek boobaa foofa la sëñ bi yem moom kon la ca des rek la ngeen ca jot rek booy boobu mooy cër bu boobaa leen ci yàlla musal leen yàlla dimbali bu baax wama leen ci bëggu sëriñ bi te saxal leen ci saxal ñu ci ca defal ñu tawféexi weer wi lim ci daale ci ay yiw ak i ngëneel yëpp mu jotal lañu ci dencal ñu ko fa yàq yeggut ngeen gën a fonk xasaayit yi rek gën a fonk njàng bi di ko gën a sellal te lenn jëfi ndaw bañ cee dugg ndaw dana baaxoo léeg-léeg mu def jëfi ndaw waaye na xasaayit yi moom bu leen ko ci jëmee jëfi ndaw moom jëmul ci lii ndax liggéeyu mag la boo xam ne bu yàlla nangu la dégg ngeen léegi ci biir mbind mi muy wax ne buy bind ci lawxul mahfuus lay toxale nee na mbindam du am xelam du am jax-jaxe du am sikki-sàkk loolu nag foofa egg fa yombut loolu sëriñ bi rek lañ ma sa dégg muy bind di wax loolu di wax ne buy bind xaras day jaayu day yëg li muy bind loolu itam sëriñ bi rek lañ ma a gis mu def mu wax ko mu bind ko tam woo wóor ñu ne ni mu ko bindee noonu la demee loolu kon ku yàlla def ndimbal nga di ci war ngaa seetaat sa bopp bu baax war ngaa fonkaat sa bopp bu baax defaraat sa bopp bala ngaa jëm ci xasaayid yi ndax xasaayid kat du yëfi gone kon nag gone gu yàlla dim ndaw lu yàlla dimb dimbali nga di ci yëngu ba nga sant yàlla bu baax te gën a xamaat li nga am gën koo téye gën koo fonk kon ñu ngi leen soññ ci loolu baax di leen sant itam bu baax ci pasteef bi ak def gi di ñaan ngeen yokk seen jom yokk seen pasteef rek loolu rek moo ci am solo te lañu yàlla boole dimbali nangul ñu jaamu yàlla yi ak koor yi ak jëf yiw yëpp jéggal ñu rëcc rëcc yi ak njuumte yi ci barkeb sëñ bi daraje weer wi te ñu yàgg ko ànd yàgg ko teewe jërëjëf